السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin di santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmed Tijani mbooleem sant ñu santee ko ki ñu fekk ci lëndam dugal ñu ci leer ki xotti suñ xol yi def ci yàlla muy mawlaana Cheikh al Islam alxaaji Ibrahima Niass jërëjëfee baay encore jërëjëfee baay jërëjëfee baay maa ngi wax ne alhamdulilah ba ma ubbee sama page la ma ci njëkk a gis ni ma nekkee taalibe gis ay sëtu Mawlaana Cheikh Ibrahim ñu dugg kon damay wax alhamdulilah xam ne li may def Cheikh Ibrahima Niass nangu na ko loolooy lan ku ma ci njëkk a gis Maamun Muntaqa la doomu Muntaqa Ibrahima Niass gis ci Cheikh Mansour doomu Maamun Ibrahima Niass waaye gis naa ci tamit sama trondo Aboubacar Tayib Niass mi nga xam ne tey Cheikh Serigne Mbaye Niass moomu tey buñ ma tuddee wax naa rek ne maa alaaji Abdoulaye mii tax ñuy wax doy na benn ci ay doomam ku mel ni Cheikh Serigne Mbaye munta am ci àddina sàkkantumaak nag ñeneen ñi ñeneen ñi ñeneen ñi ci biir kàngam mbokk taalibe yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen di ziyaara di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm ci zahir ak ci baatin di wax ak àdduna bi yëpp parce que Cheikh Ibrahima Niass international la tey waxuñu rek ci biir senegal waaye ñi ngi topp ndigal ndigal bu jógee ci kan Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Ibrahima Niass mu jaarale ko ci kan ci porte parole muy Cheikh Mouhamed El Mahi Alioune sise ñun suñu sëriñ daf ñoo yar ci ëdëb li nga xam ne bañ na ko ba téereem bu njëkk ruuxul ëdëb la tudd maanaam ci la téere bu njëkk a taalif ci yar ak nu ñuy yare taalibe nu ñuy yaree doomu aadama ñepp nga yaakar na ñun dañoo jóg ñun talibé pour def violence ñun momuñ ko xamuñ ko suñu sëriñ momut violence suñu sëriñ lan la mom suñu sëriñ fay gis nit ku yaqku mu jël la défaral la mu gis nga togn ko mu jéggal la ba paré défarat la waye nak damay wax né dafa am fum em dafa am fu mu em ñun dégg nañ ndigal te topp nañ ci ndigal googu te na ko Cheikh Mahe waxee noonu lañ koy defee dañuy tëdd su ñëwoon moom Cheikh Ibrahima Niass ko yónni muy baay mi nga xam ne tey baayam lañ tudd ba jaral ñu ñuy xeex di rey suñu bopp te su ñëwoon tey indi waxu Baay Ñas jooju dañuy tëdd ñun otoom di jaar suñu kaw ñuy paccaat ba jeex parce que ay taalibe lañ te ci taalibe rek la ñuy dee ci ndigal rek ci la ñuy dee waaw kon d'accord nañ ci loolu pare nañ ci loolu waaye mu des nag ñun taalibe yi waaye ñun est-ce que ñun ñun ñun ñun ñun ñun waa Kër Baay ñun est-ce que dañuy xëy di baale di baale di baale di baale di baale di ba yàlla rekk ku mën ndax yow doomu aadama bi yow rek yaay mën a dugg ci biir néeg fanaan ci biir néeg di xëy di tooñ yàlla di tooñ yàlla tooñ yu rëy yàlla di la jéggal ci kaw suuf waaye doomu aadama mënu ko jëlal muus wala nga jël xaj nga tëjoog moom ci biir néeg bi soo ko doon dàqe di ko dàqe ba mu dugg ci biir néeg bi su fa sësee su yàggee mu naaw ci sa kaw waaye ñun taaliba bàyyi ñun dañuy taxaw ñu ñuy saaga ba kañ serin bi li war def nokoh, ndax sëriñ bi du wax mukk ay talibem dem len xex du wax mukk ay talibem dem len ngeen rayante du wax mukk ay talibem dem len ngeen def lu ñaaw te ñun joguñ won pour lu ñaaw waye nak dafa am fo xamne da fay tollu mu doy seuk mané Iba Der cham lim def dafa yombu, nañ len waxante deug ñun mbokk yépp nañ len waxante deug yow bankas bo xamne ci aduna bi ku jur بانكاس بوري موي مولانا شيخ ابراهيم نياس nga taxaw yow nga ne historien nga histoire ngay jàngale yow dara umpulo yow ibader cham yow dara umpuko mom ibader cham dara umpuko xamna lépp yag na fi xamna kan moy Cheikh Ibrahima nias ñun dofuñ su fekke ne yenen nit ñi ño xamul ñun xam nañ ñudul sax la la wax talibe Cheikh Ibrahima nias xam nañ lan mo xew nañ waxante deug ñu dul taaliba Bañes xam nañ lan mo xew xam nañ kan moy Ibader cham Ibader dama lay fatali na la Abdou Diouf bam bindé livre bi bam ñëwé ba ci yow dafa taxaw na Ibader cham historien la waye dafa hypocrite loo loko tontu da nga nako ba ngay bind ci man mënon nga ma laaj ba pare sogo bind ci man parce que c'est lolu Abdou Diouf dafa né nit la koo xam ne ku am xam-xam waaye seytaane la maanaam kon yow li nga jàng yëpp doo ko jël teg ko ci yoon fi nga yaroo ba yaru fa ba yaru fa ba bind ci sa ay téere ba ngay moolaat téere loolu yëpp xam nañ ko noon gi nga noonoo ak Cheikh Ibrahima Niass waaye yow Baye Niass yow da ci cee tuuti pour nga noonoo ko moo tax waxatuñ Baye Niass ngeen di dem di wër foo xam ni ci bàyyi Baay nag mi nga xam ne nag moo jur lew na jur lépp ñun alaaji Abdoulaye lañu am de ku ñu ko tuutil ñu tuutil la ko moo tax bu leen yaakaar ne dañuy yaafuus toog nii di leen seetaan nii ngeen di wax lu leen neex yow naka ngay mën a toogee yow ki nga tooñ tooñ nga ko d'accord nañ waaye nga toog rek ne baalu nga baalu bi mooy nee nañ génn nañ way yaay yooyu sena ko benn kii nangam déedéet yow ki nga laal da ngaa war a taxaw journaliste yi gis nga ñun dañoo baax ba mu ëpp suñ waxee rek ñu masla taxaw naa nangam ak nangam yow nga tooñ askan lëmb baalu bi dafa waroon a taxaw nu ñu ñaanee nañu ñun buñ yëngatu noonu nga war a amee pour taxaw journaliste yëpp gis la nga ne man maa juum parce que yéen bu leen fàtte nit ñi buñ fàtte lii ñu jël du ndaw taarix la day dem ci éducation bi moo tax ma ne ministre bi dafa war a génn moo tax ma ne président dafa war a génn gis nga gannaaw lii yëpp man adressé wu ko kenn gis nga ñun taalibe bàyyi nañ waxante dëgg buñ ñàkk fayda adressé wu ma ko kenn gis nga man président mooy sama président muy Macky Sall moom laa woteel moom laa jàppale te bés ni tey nii tamit suñ toogoon nii suba suba suba ñiy wate damay yëkkati wateel ko ndax moo ma doy ci candidat parce que xam nga lu tax moo ma doy bokkut ak ak kër Cheikh Ibrahima waaye nag mun naa wax ne président ku bañ kër Cheikh Ibrahima Niass la man mun naa wax loolu mun naa wax ne ku bañ kër Cheikh Ibrahima Niass la balaa maa dee ñu ne ma indi na fa benn cinq cent millions gis nga nga nekk ci politique indi ko fa yàqul dara waaye damaa gis ni ñun waa Kër bàyyi lépp luñ bëgg a taxaw taxawoo ci yow président parce que yow yaa bindulu yow président yow yaa bindulu yaa ne bindal leen ma histoire du Sénégal kon livre bi kon mun naa wax ne li ci nekk yëpp ay kàcc la nañ jënd livre bi décret ci yow lay jóge su la neexee léegi nga taxaw ci tele bi ne salaamaaleykum décret boobu jël naa ko da dafay bokk sax ci histoire bi day bokk ci histoire Sénégal ndax téere boobu fu mu mënti dem dañ naan ah lii de président éliminé woon na ko bokkatul ci histoire Sénégal noonu lay yëf yi di demee kon wax ji wax ji du kenn ñun taalibe bàyyi nañ jàpp ne suñu noon bu gën a mag kon mooy président de la république parce que ba léegi déggoo Seydou Gueye porte parole mu wax ci déggoo ministre éducation mu wax ci déggoo ci kenn ku ci wax parce que ñun lañ yàpp parce que ñun ñoo fa mat ñetti nit ñun ñoo fa nekk doomu ñetti nit loolu ngeen foog loolu ngeen foog bu leen yaakaar ne damaa bàyyi de damaa topp ndigal bàyyi maa ngi fii wax naa la ko maa ngi Amérique damay ñëw Sénégal spécial de ma gis nga maa laa Abdoulaye lu mu ma jaralut man su may wax xol laay waxee te man tuuma làqatuwuma te li may wax dëgg la même su fekkee ne benn taalibe mooy ànd ak man ci li may def su fekkee xaru la ma sante ko yàlla su fekkee dëgg la ma sante ko yàlla dinaa ànd ak benn taalibe boobu ba léegi wane sama bopp un mois lañ leen may un mois lañ leen may gouvernement Sénégal un mois fii ba gàmm gi laa la wax su ma ñëwee barke Cheikh Ibrahima ños suñ ci gisul benn soppite giñ ci waxut gisuñ ci benn réagir boo xam ne gouvernement bi réagir na ko te wax nañ ci barke rasulullaay dinaa def conférence de presse te dinañ ko naqarlu génn en masse même suñuy ñett nit laa la wax même suy ñett nit danañ génn te maa ngi gërëm international bi may oo yëpp pour bu pare woon ñoom taaliba bàyyi ku nekk dem ci ambassadeur yi bu leen ko bàyyeegum déglu leen ma bu kenn bàyyi seen maa ngi lay nuyu ci Suède maa ngi lay nuyu bu baax gis naa sa taxawaay ak taalibe yi dégg nga Babacar Deef maa ngi lay nuyu bu baax gis naa sa taxawaay tamit ci almaañ noonu nu ngeen pare woon maa ngi lay nuyu bu baax dégg nga yaa xii maa ngi lay nuyu bu baax taxaw guñ taxawoon pour dem ci ambasaad yi wane suñu naqar loolu bu leen ko bàyyi toog leen ngeen déglu ma fii ak un mois fii ba gàmm gi su ma wàccee Sénégal gisuma benn coppite dinaa def conférence de presse te dinaa oo taalibe yi ñu naqarlu ko ndax duñu seetaan mukk ñu nee nañ livre yi livre yi mun ngi ci ambassade yi moo tax ma ne la su fekkoon ne nguur amul loo xam ne daf ñu ko bañee wala daf ñu ko contrer dama lay wax dëgg gis nga libraire yiy jaay livre yi dañuy dem jëli ko am na libraire yu nekk foofu ñun ñu ngi fi waye am nañ information yépp ñu ngi koy jaay ba tey kan moo fi génne woon livre président ne nañ jël livre yooyu yëpp ramasse ko buñ ko fi jaay ci réew ci ay minutes mu jeex waaye yow yaa bindulu histoire u Sénégal yow président nga bindulu ko ba pare nga bàyyi ko noonu lu tax doo taxaw ci décret ne arrêté nañ loolu parce que ñun xam nañ li ngeen ñu bëgg a def mais loolu du gis nga fii dañoo toll foo xam ne ci kër Cheikh Ibrahima Niass man de xawma ñaan leen yàlla ma dee ñi nga xam ne dama leen di déranger nañ ñaan yàlla ma dee ma gaaw a dee waaye fii ak maa ngi dund man maalaa juruma man kenn de ñu bari lañ jur waaye man fii ak maa ngi dund man na nga xam ne lépp luñ laale ci ci ci famille ñaseen moo xam ci lu ko dalee ci silsila maalaa ji Abdoulaye man taxaw naa joxe sama bakkan bi parce que lii jot jot na li war a jeex jeex na dootuñ nangooti kenn ku mënti doon nga taxaw téyeñu di ñu saaga di ñu wax lépp suñu waxee rek ñu ne jéggalu nañ te jéggalu bi ci seen biir rek la ñu def yéen da ngeen a xamut nit ñuy joué lii yëpp ay piyon la pion yii ñuy joué ñi ñun xam nañ bu baax xam nañ bu baax yaa ngi dégg dañuy bëgg waaw pourquoi sax pourquoi waaye waay dëgg-dëgg nag pourquoi ñun rek leer na pourquoi ñun rek leer na ndax suñ nekkutoon dara ci kaw àddina wallahi duñu mës a bëri na kër taalibe tiijaan yu fi nekk mais xooluñ kenn kër alaaji Abdoulaye yéen soo leen di nettali taarix ci kër alaaji Abdoulaye amoo loo leen di bind lu talibé taalibe fee la yow alaaji Abdoulaye doo nettali ba muy jógee Jolof lan moko ko jëlee Jolof indi ko fii nga xamné moy salum nga wax ne alaaji Abdoulaye ñum maasee won ak suñu mam borom Touba mam haj malik Cheikh Omar foutiou ñi la maase won dedet du ma ne maam Haaj Malick papaay mam haj malik la fekkale ci xarabe mom moom alaaji Abdoulaye lu tax mu ci génération bobu parce que moom rek moo fekkee xare bi nga xam ne mooy xare Mbaba Jaxu booba loolu moo ko jëlee Jolof indi ko Saalum Cheikh Ibrahima Niass soo leen di bind euh, soo leen bind ci Alaaji Abdoulaye bind leen ci xareem bi mu xare jëlee ko Jolof ñëw bind leen ba muy dem Màkka bind leen ba muy dem Faas bind leen lu ko indi tamit diggante Faas ak Tiwaawan yéen amoo leen loo leen di bind rek lu du benn trace bu ndaw kan yéen bindoo leen bindoo leen taarix lu leen neex ngeen di def kon du guddal du ma gàttal taalibe yi ñu amoon lu leen naqari yépp maa ngi leen di ñaan encore une fois ci ndigal cheikh Ibrahima Niass mooy cheikh Ahmed Tijani Ibrahima Niass suñ xalifa porte-parole am cheikh Mouhamed El Mahi Alioune Cissé wax na te sëriñ bee ko wax loo nañ def li nga xam ne moom lay taalibe di def teg lépp ci suuf ñu toog di déglu nee nañ jël nañ ñoo xam ne ñu ngi ciy dox man de un mois laa maye un mois laa maye te maa ngi ñëw barke Cheikh Ibrahima Niass du ma wax taalibe mukk luy dañ talibé duma len wax mukk luy dañ ma ngi ñew te suma ñewé dina def conférence de presse te fi ak li gisuma nguur taxaw annoncé ci wax ci wallahi lazim na ngeen xamné dina len o ñun ñep ñu genn benno xéxando li ba nga xamné danañ ko dindi ci livre gi lolu ma ngi am pour wax len ko ma waxal len ne len balu bi bi len ko accepter ndax balu bobu du balu munoo wax lu rëy loo xam ni international bi yëpp nga tooñ nga taxaw fee ñun wóoruñu sax ndax ko yaa ko dugal wala dugaloo ko dara wóoruñu ci li nga amoon pour def sa conférence de presse wane na yow erreur bi nangu nga ko yaa ko def ñu mun a xam waaye li may wax rek taalibe bàyyi jàpp leen ne ñun suñu première noon mooy président Macky Sall sama président

Medina Baye à cent pour cent ñu ngi koy jàppale waaye na ngeen jàpp ne li ñu koy jàppale yépp jàppale na suñu noon mooy président de la république yéen taaliba Baye jàppaleen loolu man Baye Mbaye MC maa ko wax na ngeen jàpp ne mooy suñu noon parce que su fekkoon na yeneen kër yi la wallahi baatam génn na bu yàgg waaye moom moo ci mun a wax moo mun a moom mu ko digale ne bind leen histoire Sénégal moom moo ko mën a arrêté te déggoo leen ko mu wax ba léegi ministre am bi nga xam ne mooy ministre éducation déggoo leen ko mu wax ba léegi ndax livre boobu foofu la jëm pour xale yi jàng ko pour ëllëg ñu mën koo taxaw kon nag jàpp leen ne président de la république yow Macky sàll yaay suñu première noon ñun waa kër Cheikh Ibrahim Niass te ñun xam nañ ci dara waaw suñuy noon ngeen xam nañ ci dara te du ko nëbb te du leen bàyyi noonu nag fii ak maa ngi nooy di dund xam leen ne heure bu ma xëyee naa fàttali taalibe yi lii waaw benn ngeen koy dindee waaw te nag Iba Der Thiam ñu ngi lay ñaan yàlla képp kuy taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim ak foo mënti nekk jëlal say kurus ñaan yàlla yàlla nañu yàlla atteg yow balaa at bii di jeex waaw duñ la ko baal ci zahir duñ la ko baal ci baatin waaw ak yow képp koo àndal ñu taxaw te xam li ngeen bind nii xam nañ ne ay foo la yéen ñëpp duñ ci baal kenn fii ak defoo leen taxaw yéen commission boobu ngeen taxaw taxaw def li nga xam ne mooy conférence de presse wane na yéen a ngi jéggalu fii ak defoo leen ko wallahi lazim képp kuy taaliba bàyyi foo mënta nekk ci àddina bi jëlal sa kurus del ñaan rek bët bu set wallahi fii balaa déwén ñoom ñëpp wallahi lazim yàlla du ya yeggale waaye danañ gis barke Cheikh Ibrahima ñass ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu jamm ma ngi jéggalu encore une fois ci samay kalifa ñu nga xam ñom la am muy merina Cheikh Ibrahima ñass yeen mëno leena wax li leen war rek moy masla ak digal ñu lu bax ñu topp ci loolu waaye nag yëf yi nag dafay dem ba toll foo xam ni bàyyi leen ñun ñun ñun ñu def ñun ñun ñun ñu def li nga xam ni kenn dootuñu yab ndax duñ ay doxandeem ci réew mi réew mii dañ cee am pàcc maa alaaji Abdoulaye Niass dafa xeexal senegal ci xare lislaam ko xeexal senegal am lu bari ci senegal senegal histoire senegal mënoo wax mukk ba génne ci maa alaaji Abdoulaye ñas ñim jur nag ay kàngam lañ taawam maam Khalifa tey mi nga xam ne moo jur Ahmed Khalifa Niass moomu lim def ci Sénégal ci ay téere ci xam-xam ci nangam munuñ ko wax nu mu toll rawatina nag doomam ja cheikhul islam mi nga xam ne mooy cheikh Ibrahim nga xam ne mooy international bi te tey boo bokk na ci histoire Sénégal relation diplomatique bii su amee biir Sénégal amewuñ ko fenn ku dul ci cheikh Ibrahima Niass waaye kon kon kon nañ ñu respecté tuuti buñ gis ne taalibe bàyyi taxaw nañ du ñuy wax du ñuy yëngatu du ñuy def dara rek mbalit muñ am rek ñu ñëw sottil ñu ko ndax ngeen seen bopp ndax ngeen seen bopp te nag na ngeen xam ni duñ leen ko bàyyi mukk am na loo xam ni incha allah maa ngi koy wax mbooleem taalibe bàyyi su ma ñëwee dinaa oote réunion su ma ootee réunion dinaa oote conférence de presse te danañ taxaw noo xam ne danañ ko taxawaaye taxawaayate soppiwaat xarxamu kër Cheikh Ibrahima Niass bi kanamu kër Cheikh Ibrahima Niass bi danañ ko soppi ci nii ak ci naa li may wax rek képp koo xam ne daal contre na sama wax ji wala képp koo xam ne li may wax neexu la yaa ngi dégg di taxaw naan Baye Mbaye mooy jël décision jëluma décision kenn jëluma waxu kenn defuma kenn taalibe Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass laa yaa ngi dégg damay défendre sama kër sëriñ à cent pour cent li may wax rek ku ma ci déranger rek ñaan ma yàlla ma dee su ma dee rek nga nga nga noppalu képp koo xam ne dama lay déranger rek ñaan ma yàlla ma dee loolu rek lay wax waaye fii ak maa ngi dund moom nekk taalibe Cheikh Ibrahima Niass te moom laay doon ba faw bay dee bay dund ca àjjana moom laay doon waaw ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm aw tawfiq ñu ngi leen di ñaan vendredi suba marché bi ñu waroon a def pour naqarlu maa ngi ñaan ñëpp ñu dal delluwaat ci kër yi topp ndigal ni ko Cheikh Mahi waxee na ñëpp delluwaat ci kër yi ñu toog muñ képp ku am pour woo ma mun nga maa oo ci 615 22 22 sama whatsapp la maa ngi fii ku ma ma jël la man amu sama téléphone ku ko soxla rek taalibe bu soxla sama numéro 615 22 22 mooy whatsapp bi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm euh, mboolem suñu réseaux sociaux yi nga xam ni euh, mooy kër Maulana Cheikh Ibrahim muy Maalam Baay muy euh, ki nga xam ne El Tidjaniya muy Kossy TV yaa ngi dégg muy Sàll mu Baay ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant Euh, ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm ubbil ñu xéewal yi defal ñu tawfiq te lu mel ni yàlla na fi yem yàlla buñ ko gisati waaye jàpp leen sama wax ju mujj mooy bu leen jàpp ne kenn mooy seen noon ku dul président de la république moom moo bañ a wax ci yëf yi ndax su waxoon ci yëf yi mooy suñu baay mooy suñu mag mooy suñu ndey ndax mooy président su ci waxoon rek lépp sotti na waaye gis nga ba léegi waxuñ ci defuñ ci dara moom ak ministre éducation kon nañ jàpp na ñooñu ñooy suñu noonu ñun waa kër Cheikh Ibrahim kon nañ am fulla ci ñoom wasalaamaaleykum wa rahmatullah